dinaa ñëw nag effectivement ci li nga xamante ni moom mooy deux points yi ñu doon waxtaane mais je suis resté sur ma faim parce que dama soxla en réalité tey ñun en tant que leader yuy am lu ñuy incarné dafa am responsabilité bu ñu incombé cette responsabilité la mooy wan ñi nga xamante ni ñooy population sénégalaise ki ñun lii ñuy woote dialogue bii nga xamante ni moom la ñuy woote du comme dialogue bi nga xamante ni moom moo am fële te pour ñu wan leen ko il faut ñu wan leen ni ñun on de bonne fois loolu nag day confirmer encore une fois li Cheikh Tidiane wax sànq te ma wax ko la fois dernière mooy charte bi mu ni dinañ ko proposer pour que nit ñi signé ko man dama naan nañu ko imposer pour organisation yi bokk ci F24 yépp ñu signé cette charte parce que ñun bi ñu duggee encore une fois au bout de deux jours dañu bind benn lettre adressé ko au coordonnateur ni ko ñépp ñi fi bokk tey te ñu nekk ay candidats ni ñu bind signé waat ni même bu leen ko conseil constitutionnel di mayati dootuñu engagé pour def troisième candidature ak yeneen yi nga xamante ni moom moo ci moom moo ci jël beneen bi ci des mooy lii nga xamante ni moom la ñuy liggéey tey dañu war a fexe ba sénégalais bii nga xamante ni moom moo ëpp solo ci xeex bi mu épouser le combat tey la troisième candidature ñun fii ñu toog mënuñu ko xeex les stratégies yi nga xamante ni ñu ngi koy développer boobu ba léegi gis nañ ni ça na ne pas efficace parce que kii nga xamante ni moom la ñuy jàmbaar lool ku dul dégg wax bi nga xamante ni moom la ñuy wax mais pour man il faut que ñu communiquer dans ce cas-là et il faut que ñu communiquer de façon simple pour que le Sénégalais lambda puisse comprendre tey dama partager benn vidéo bu ma def démb plateau Sénéweb am kenn ci plénière bi def benn remarque ma dugg insister wane ni c'est important aujourd'hui que les jeunes porte le combat c'est important que les jeunes parlent mais c'est important que toutes les organisation wane ni li F24 di xeex du ay pàcc ñoo koy xeex du maître Moussa du Cheikh Tidiane Dieye du coordonnateur moo koy xeex mais jeunes yi fi nekk yor seeni ay organisation di dugg au fin fond du Sénégal parce que ñun ñu ngi waajal dem ngaay mexe Pire ñu ngi jóge Touba ba ki démb jugee Louga ak feneen ak feneen il faut que ñoom ñu gëm ni ñun aussi lii ñu bokkee f ay caaxaan la proposition bi nga xamante ni moom laa bëgg dugal mu nekk lu am solo tey effectivement dañu ni woon na ñëpp nekk en blanc mais malheureusement communication bi jàllul ñun xëy na so yëg nañ ko sol nañ ko mais le sénégalais yëgu ko li ñu xalaat te bëgg ko proposer mooy jouru tabaski ñu proposer à ce que tous les sénégalais se mettent en blanc ñépp dem jullee ji ak yére bu weex muy yére bu màgget muy yére bu bees muy yére bu yàgg nañu ko sol